ma yokk sama armel muy kuréel goo xam ne dafa ëmb ay kuréel yu bëri euh, yu demee na kii euh, kuréel yi nekk fii nii ci pikin ak ñoo xamante bokk ñu genn kuréel te li nga xam moom moo leen itteel mooy rek ne armel yi bañ ko fi tabaxee atum 1952 léegi fees na armel yi fees na ba nga xamante ni ku fi ñëwati di rab da ngay jéem a wut xanaa pukus boo xamante ni fa ngay kii léeg sax ñuy tegale néew yi te loolu du loo xamante bett nañu ndaxte yaakaar naa ne ay at ngi imam yeeg ñi bokk ci euh, association yeeg ñii nga xamante ni dañoo bokk tamit euh, ci euh, fu ne ci société civile rek fu nekk ñu ngi yëkkati seen kàddu di ñaan ngir armeel yi ñu yokk ko booba léegi am na fi ay ndaje yu bëri yoo xamante ni ñi nga xam ñooy fara maanaam maire yi nga xam ñoom ñoo jiitee gox yi nekk ci Pikine xaati euh, xaatimoon nañ ab euh, bataaxal nekkat ñoom gis nañ ne càkkuteef googu jëm ci yokk armée yi lu jaadu la te lu mën a nekk la ba kii di fara bu Pikine Ouest muy euh, ki fi nekkoon di Pape Malick Anne def lu woon ci ab ak càmbar maanaam benn étude d'impact environnemental étude boobu li mu wane mooy ne fii mën nañ fay yokk armée li étude boobu ñu ngeeg moom mu def fukki xët ak juróom-ñett maanaam 18 pages loolu boo ko booleek li nga xamante ni ñun moom lañ gisal suñu bopp yaakaar naa sànq bi ñu ànd ak saabalkat yi maanaam journaliste dugg ci biir euh, xur wi gis ngeen ne fii wax dëgg yàlla bërëb la boo xamante ni mën nañ fee yokk armée yi di fi denc ay way dawlu loolu yëpp nag moom moo tax tey kuréel gi nga xamante ni moom mooy sama suuf ma yokk sama armeel judd boo leen sama suuf ma yokk sama armeel yéen a gisal seen bopp ndaxte am na suuf si loo xamante ni ay nit dañ cee teg loxo benn bi mooy li ngeen di jàkkaarlool ñu te mu am yurgo wu na maanaam couleur bu verte muy hangar bële na ki ko fa tabax mom sambakan, ke dëkk keur sambakan nek nekk fa ab fara nekk fa ab maire mi ngi tudd Ibrahima khalid Fall koku mo joge ba keur sambakan ñu fekk wa Pikine fi nga xam ñun ñi ñëpp fii lañ foowee fii lañ mënu ñu fe dëkk ñu ñëw ne kon yeen sax kenn du leen fusul ndax te fi ka dañ koy jox ab doxandem bo xamanteni ni ko ba keur sambakan mu tabax fi ni angar di ko ay indien xaliss bi di gem mu koy def ci posam wa Pikine sen armel fess amuñu fuñ leen fuñ denj bo duggé ci biir tam di nga gis ne am na ay fondation ak ay bâtiment yoo xam tabax nañ ko am na yoo xam waa Descos ñëw nañ arrêté ko am na yoo xam ñu ngi koy wéyal ndaxte bu ngeen ko gisee bu ñu fa gis ngeen maçon yi ñuy liggéey dimanche la liggéey ak guddi xam nga kuy liggéey dimanche ak guddi moo ko xam am nga liggéey nëbb loolu yëpp nag boo ko boolee moom moo tax ñu ne kat dañuy woo nii di euh, njiit yi muy fara bu Pikine di Ablaye Timbo di jëwriñ ji nga xam ne moom moo yor kéewu mi maanaam ministre de l'environnement kee di Abdou Karim Sall ak ñëpp ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ay euh, faral lañ maanaam ay maire nekk fii ci gox-goxaatu Pikine yi ñoom ñëpp ñu wuyu li nga xamante moom leen askan wi doo mooy ñu yokk armée yi ndaxte buñ nee kat ah, li ci ginnaaw doyul pour ñu yokk ay armée ñoom dañoo umpale ne armée yi nii booy xool ci yaatuwaayam mi ngi toll ci ñeenti hectares te li des ci ginnaaw mën na fukki hectares ak ñaar ba jege sax fukki hectare ak ñett douze hectare virgule sept moom moo nekk ci ginnaaw yaakaar naa ne tey jii tey waa pikin am nañ droit am ay armeel yoo xamante ne ni dina mel ne armeel yu Yoff yi wala armeel yi nga xam dafa méngoo jamono armeel yoo xam boo gisee armeel yi bañ kaa tabax amaana jamono moom moo tax ñu tabaxee ko nii waaye ay war nañ mën a dugal ay eh, ay néew ay way dawlu ba ci biir biir biir nga xamante ni dinañ mën a def ay plaque ba nga xam ku nekk dina xam fan ngay jaar ba gis sa kii waaye fii ku fi dugg sax da ngay réer te mën nañ ko yokk ibbee buntu bi fële na le def fa benn parking bu mag a mag a mag ba li am fi buñ amé ñu ñëw di rob fi xat ba nga xamante tali bi kenn dootu fu jaar lool amati lool daal moom motax sama suf ma yok sama armel taxaw ta xex bi day dogo dor door ci jublu ci jano bi ñu jano ak sabal yi manam journaliste yi moy yëgal ko ñi nga xam moom moy ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo yor ay ndombay tank ci pikin muy kilifa yi yëgal ko itam askan wi ta xam kat buñ jógee fi ni danañ toog jéem a ndaje mi ñu amal ak sabal yi ak njuree fi ci jéem a xool nag ñun lan mooy nekk suñuy jubluwaay ndaxte ñoo ngi dégg ñu naan mbaaw ñu mbaaw xam nga Pikine bi fii Zombay mi ngi mel tëdd Omar Zombay ku xam Zombay xam na Zombay c'est le symbole de notre pikinité te fii ay kilifa ñoom ñoo fi dëkk ñoo fi tëdd suñu ay papa suñu ay yaay ay kilifa diine ay kilifa ci wàllu sport ay kilifa ci wàllu euh, art ak ak ak culture loolu moom moo tax ñun nag bu ñu sañoon ñun Pikine lañ ñu denc parce que ñun Dominique gii lañ bëgg ñu denc ñu te bu doon sax espace amul ñu mën a wax waaye li des ci espace man na ñett ca ba ëpp ko li nga xam ne moom moo nekk fii nii ci espace te bëgg ñu tëj armée yi parce que armée yi dafa nekk symbole ci Pikine dañoo bëgg ñun bu ñu julee suñu jumaa yi dox ndànk ñëw ñaanal suñu way daw di te ñun bu ñu fi ñu denc fi moom moo tax ñuy woo autorité yi loolu nañ ko sóoraale te xam ne kat lii nii ñun duñ ci bàyyi dara lu dul ne ah li ñuy sàkku dañ ko bëgg dañ ko am te lu ñuy sàkku du suñu sàkku teef ñu nii ñun ngeen gis waaye Pikine yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp seen càkkuteef leen la mooy ñu jox ñu suñu suuf si nga xamante ni nit da cee teg loxo tabax ci ñu dajj tabax yooyu noonu yokkal na suñu armel. bien parlé bien parlé merci beaucoup.